yëpp jàmm ñëw di ñaan ñu tabaski ci jàmm fekkee ko tal ko def ko ci jàmm ak salaam tàmbali ko ci bisimilah jeexal ko ci alhamdulilah ñu ko fekkeewul nekk ci kaso yi yàlla na yàlla génn leen delloo leen seen biir kër ñu tëdd ci hôpital yi mu ci leen li nga xamante ni wuti nañ ko ñu nga alaxira yàlla yàlla yërëm leen te jégal leen te yéexee ñu Seydina Omar jërëjëf dootuma wax dara ndax yow li ñu dee mate nga ko sëkk jërëjëf li nga waroon wax wax nga jërëjëf Mamadou Yatta Sarr jërëjëf jërëjëf nag merci beaucoup mm-hmm. merci beaucoup ku defu dara mm-hmm. ah doo ko mm-hmm. man loolu laay tëjee sama kàddu ndax li ñu waroon wax yëpp wax nga ko ndax loolu moo la fi kon Oumar wax nga jërëjëf jërëjëf merci beaucoup président alors liggéey waaw ni ma ko waxee rek lépp lu ma waroon wax rek Omar wax na ko donc bu sab yàlla bu lëndee xëy na moom dina mën a yaatal parce que jëfu Omar ñu bokk benn jëf nag ak jëf lu mu rek dëgg la parce que daf may neex jërëjëf jërëjëf kon jëf ba lëndi ba lëndi incha allah c'est bon Mass. Mike Mike. ah jërëjëf jërëjëf. gars yi jërë ngeen jëf. waaw ma ma ubbi rek balaa président bi def ay kàddu. da ngay orienté wu tuuti waaw. ngeen gisee lii. Ah, Mass sa micro baax na ok. gars yi bu ngeen gisee lii. dara waralu ko lu dul teraanga joo xam ne soppe moo ko yëkkati jëme ci soppeem. lii nag day wane ni jëf du tuut boroom lay tolloo waaye xol mooy jëf bopp du jëf tànk du jëf làmmiñ du jëf jëmm du jëf xol mooy jëf ki jëf lii nag li tax ma gëm ne yàlla nangu na jëfam mooy xeeb na jëf ji ba mu jaral ko mu fay téléphone ngir bañ ko ko woo remercier ko ndax xeeb gi mu xeeb jëf ji waaye xeeb gi mu xeeb it ki mu ko defal ndax kat jàpp na ne wax dëgg yàlla kii fi mu jaar ak ndox bi mu jëm jii di président Waly Ballago Seck fi mu jaar ndox bi waroon naa tax tey ay camion camion camion camion la ñuy rangale noo faar ba west faar ñuy wàccee ndox bi di ko dugal ci kër gi ndax kat ba mu méttee balaa gu nu ma yar ma yaa xuus jàll te kenn jàlluwu la Aquaterra tey la neex ku ne naan Aquaterra ñii way di way ñii fekk di fecc ñii taasu di taasu ñii animé di animé ñii animatrice di animatrice ñii communiqué di communiqué waaye dama ne ba mu méttee musab fekk fi concurrence bu métti xeex bi bari buuxante bi bari yow képp Maria Yacine Messi bi nga yaa taxaw dëggal sa bopp waaye ak waa Terra yow rek yaa taxaw dëggal sa bopp noddu ko ci kaw jiin ko bëri réew mépp xam ak waa ku ko xam ci Sénégal yaa tax mu xam kon nag li war Mamadou Yatta Saay rek sa ministre loolu la def ministre de l'hydraulique Mamadou Yatta Saay bokk ci gouvernement président Wally Seck li ko war la def li ko war nag mooy comme moom le président dénk dox bi ndox moom dootul manqué ci président ak njabootam tey indil na ko 5000 bouteilles d'eau yoo xam ne benn bu ci nekk président Wally Seck jàmm réew mi leen ci def moo nekk ci logo bi boole ko cinq fontaines ak vingt dix neuf litres yoo xam ne pour fontaine la ak euh, laa laadum pur sang bii ngeen gis léegi ak benn enveloppe boo xam ne xeeb na ko lool ma ne ko papa enveloppe bi pour lan la munuma koo jox ndawal di nga ko jox soble ak foobar lu munul ñàkk la ak pomme ndax ay doomi géwél ngeen te ay murit saadix ngeen ma ne ko loolu de bëgg naa ci suma xol sedd mu mu dee ko saa nag ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm di ko ñaana yàlla guddal fanam ci wéral ko ay cëram nit ku baax la as gor la nit ku yiw la ku xam teraanga la ku mën lu baax la ku mën a sonn ci doomu aadama la waaye yàllaa ko nattu ndox mi ndoxu ñëpp la waaye waalee moom ndox mi te moom xam na loolu ndax kat ba nuy door waale ndox may door a door kon tey fu ndox mi yegg tey rek waale am na ci cër bu am solo moom nag ndokk yàlla ba mu ko xamee ndax as gor la du wor du fàtte démb du fiddi kóllëre waaye mu defal ko koo xam ne lu ko waaye defal defal na ko mbooloo nit ba pare teral na koo xam ne sama waa ji la ti jóg dégg mbaay maamam dañ ko weyloo mu bañ ñu dagg bopp bopp baa nga des sa bu sile kër yuga diggante ko góor ak maarim jot dem ba dégg mbaay dem bay sa dégg mbaay daagu daagu dégg mbaay ku la faale ko dem nga des la mbaay ñii njiin njiin faramaarim njiin borom beleel jàmbar jàng ngii kii lu ko waay terale ci réew mi fekk nga mu terale ko ba noppi xar yi nga indi la mu joxe ci xar ëpp na ñaar téeméer li jaat sama loxo ëpp na juróom te damay sedd séddale Youssou Dieng di séddale Baara Imaama di séddale Sëñ Fallou Mbacke di séddale Baye Zane di séddale Pogo Modou Mbaye di séddale ak keneen ak keneen ku ma xamul. man li jaar sama loxo rek ëpp na 60 xar yoo xam ne jóge na ci moom tàbbi ci ay kilifa ak ay nit ñu baax ak ay notable fii ci réew mi kon kii ku ko jox xar fekk nga mu joxe ay xar bu noppi ko jox i koppar bi fekk nga mu joxe ko ba jeexal ku ko jox lu mu mën a doon fekk ko mu jox ko ba noppi waaye moom jàppul nit ci la ngay joxe la nga ñàkk joxe la jàppee nit xol la ak yëg-yëg ak yéene te moom la jàppee Mamadou Ibra Sall kon maa ngi lay ñaanal Maria Sy suñu président président jàmm réew mi yàlla bàyyi la fi guddal sa fan te wéral sa cër di invité waat nag presse bii nga xam ne ñoo ñëw tey tey Mamadou Ibra saay moo indi jëfam parce que nag gouvernement bi dañu am ci biir gouvernement bi ay ministre ak ay porte-parole yoo xam ne dañoo bokk groupe yàlla dogal nag ñun suñu groupe sama yaay Awa Baba Thiam la sama pap Mamadou Ibra Sall ak sama mag monsieur le consul de Bordeaux Etienne Ndong borom centre sécurité ñun nag dafa am fu taxaw ñun ma bëgg sénégalais xam ko mooy suñu digganteeg waal yi liñ bëgg mooy waal yi di toog muy dox ñun loolu lañ bëgg bëggatuñu muy sonn di jub di doxi di wuti leen ndax nag wax dëgg yàlla 15 ans de carrière yi mel na ni 60 ans de carrière ndax lépp lu ci war a wax wax na ko lépp luñ ci war a jëf jëf na ko te lu ma am bokk na ko réew mi liñ bëgg nag mooy mu toog wéeru maag sama équipe ñu dugg ci dëkk bi lu mu bëgg ñu indil ko ko nay toog muy dox waaw loolu mooy sama yéene mooy li ma bëgg mooy bul sonnati dara day toog sa kër gii di nelaw ba mu neex la boo yeewoo lekk ba suur naan ba gonjox lépp di dox te ñu koy doxal ñu ngi fi leen di invité naa leen ah damay indi sama jëf eh. waaw waaw lii jëfu Mamadou Yatta Sarr ministre de l'hydraulique waaye la porte-parole du gouvernement lundi di indi jëfam dimanche Étienne na consul de Bordeaux di indi jëfam ndax mbir mi foofu la toll ah, ku ne di jëf di wane sa pastéef ak sa cofeel ti mbax li mbax la lam nu mënal ay way la mi ngi nuy wayal ba suñu xol yi sedd ñun li nu war mooy nu jëf dan lu jëf ah, leen di invité naa leen dinaa ko jébbal si fii ci kër gi juróom-ñaari xar ah? xar bu ne dinaa ko booleeg saaku soble saaku pombiteer keesu fruit biteeli diwlin ak pak doo ba muy juróom-ñaar lundi 19 heures fekk président nelaw ba yow ngeen daje fi yéen ñëpp ma joxe sama jëf. waaw président jërëjëf jëf na sa fay. ñu ngi lay ñaanal yàlla bu guddal sa fan. te wéral say cër. yàgg fi te wér. lépp di dox. ndax nag tubarkàlla macha allah. defar nga ñuy defare barke Serigne Saliou Mbacké. dimbali nga ñuy dimbali. waaye dangaa fekk ay nit yu tekkul woon dara. nga def leen dara tey ba tey ñoom ñooy defee dara. fekk ay nit ñu amul dërëm. nga def ci ñoom dërëm ba tey ñooy joxe dërëm. waaye bari na ñu amul woon liggéey yaa tax ñu am liggéey. bari na ñu amul woon kër yaa tax ñu bari na ñu mën a woon dimbali seen ndey buñ leen yóbboo màkk ak fu mu a doon yaa tax kon tey jot na nga wéeru bari nu jëf yàgg fi tëwél ma bàyyi la kàddu bi ah sëpp senegal jàmm ñëw di ñaan ñu tabaski ci jàmm fekkee ko tal ko def ko ci jàmm ak salaam tàmbali ko ci bisimilah jeexal ko ci alhamdulilah ñu ko fekkeewul nekk ci kaso yi yàlla yàlla jënd leen delloo leen seen biir kër ñu tëdd ci hôpital yi mu yëkkati leen li nga xamante ni wuti nañ ko ñu nga alaxira yàlla yàlla yërëm leen te jégal leen te yéexee ñu Seydina Omar. jërëjëf dootuma wax dara ndax yow li ngay dee mate nga ko sëkk. jërëjëf li nga waroon wax wax nga ko jërëjëf Mamadou Yatta Sarr. jërëjëf jërëjëf nag merci beaucoup. Mm-hmm. merci beaucoup ku defu dara. Mm-hmm. ah doo ko dégg. Mm-hmm. merci Mamadou Yatta Sarr. man loolu rek laay tëjee sama kàddu. jërëjëf ndax li ñu waroon wax yëpp. wax nga ko ndax loolu moo la fi. kon Oumar wax nga. jërëjëf jërëjëf waaw ñu gis sponsor yi gis naa temps yi waaye gis nañu ay sponsor yu bëri bëri. alors liggéey bu nekk ci ginnaaw lan la ba waaye. sponsor yi li ma ko waxee rek lépp lu ma waroon wax rek Omar wax na euh, bu sab yàlla bu lëndee xëy na moom dina mën a yaatal parce que jëfu Omar mënul bokk benn jëf nag ak jëf lu mu rëy bos Omar daf may neex jërëjëf jërëjëf kon jëf ba lundi ba lundi incha allah